diggante bi Moussa Dioum mu nekk champion ci parcelle ñu ñoom ñaar ñu bokk génération def noonu lu bari ñi lay jaarale ñu bokk di lay nuyu. waaw ñi leen dafay fay di fay Sénégal yëpp di jaale Moussa Dioum dañ koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale monde làmb di ko jaale waa Parcelles Assainies particulièrement ak famem ñu ngi koy jaale musa Dioum xam na ni deewee na ndaw waaye wax dëgg yàlla ginnaawam dara ñaaw ci Moussa moom waaye ñëpp la woon. man damaan Moussa bi ma koy xam ba maa ngi def CM2 boobu Moussa jàng ba wàcc dem fekk ñoom Mathieu Pereira ñoom Ousa ñoom Lato ñoom Baboy Géej foofu loolu yàgg na boobu bu ñu amee ay 13 ans ci lay yem quoi kon sama xam moom ah Moussa Dioum yàgg na lool lool wax dëgg yàlla. ngeen bokk génération def loolu bari ci mm-hmm. lamb kan moo nekkoon musaa Dioum. waaw Moussa Dioum benn phénomène la woon quoi nit ku baax la nag nit ku saf xorom foofu fu mu toog kenn du kenn kenn du ñëpp quoi nitu jàmm la daal boo bëggee dégg dëgg quoi Moussa moom nit ku jàmm nit ku baax la dëgg yàlla ah ñu ngi koy ñaan fu mu jëm daal yàlla na ko gënal fu mu jugee quoi waaw. démb bi ñu la woowee wax na ne la Moussa Dioum génn àdduna lan nga yëg. waaw mbéyteel laa man Papa Gueye moo ma eh Moussa Dioum pour man dafa am combat sax quoi moom ñi ngi saal quoi ma ne ko lu mu ne ma Moussa Dioum ma ne ko ah la mu ne ma Moussa Dioum la ñuy tàggee quoi. bon loolu dafa yàq suñu entraînement yëpp dem wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ndax kenn foogul woon ni yëguñu man yëgu moon feebaram yëgu moon dara quoi dama jékki-jékki rek mu dal suñu kaw mais ñu ngi koy ñaanal daal fu mu jëm daal yàlla na fu mu jógee lan moo la gën a war a marqué ci moom loo dund nga ko doo ko fàtte bu ngeen dund yéen waaw Moussa moom nit ku baax la wax dëgg yàlla nit ku xew xewle ku mu yëg ni xewle nga sax dana ñëw sa xew ak lu mënti xew muy jàmm muy safaan ba nit ku baax la daal moom nit ku baax la daal mënta wees nit ku baax wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan yàlla ko yàlla fal cat cat bañ ko jiit si bàmmeelam loolu ñu koy ñaan waaw. yan nga xamante ne waaw ñu de ay judd lañ Moussa moom famille famille Moussa Dioum suñu famille la yaay Moussa Dioum suñu yaay la ay grand frère ñoom grand daam ñëpp suñu ay grand lañu wax dëgg yàlla benn famille la dañuy yàlla nañu ñaan rek yàlla may ñu xolu muñ damay ñu leneen lu leneen lu gën lii incha allah loolu la ñuy ñaan quoi. taxawaay bi aussi bi lamb am ñu gis ko à chaque fois muy naqar bi bànneex ku ko ci am rek lamb yi ñu jug sol seen dàll ñu soutenir la taxawaay boobu naka nga ko gisee ci lamb papa. waaw lamb daf ñoo daf ñuy lamb daf ñuy boole waaye war ñoo tàkkale. Hmm. waaw lamb daf ñuy boole war ñoo tàkkale loolu sax ci da koy wan hmm. képp ku la ci làmb rek moo xam moo xam safaan ba la moo xam bànneex la. di nga gis monde làmb sooy wax dëgg yàlla. làmb daal monde làmb daal mi ngi noonu quoi wax dëgg yàlla waaw beneen monde la quoi. waaw moment yëgu ma feebaram yëgu ma ni Moussa Dioum wallaahi yëgu ma feebaram ma li ma ci am démb rek mooy eh Moussa Dioum ma man combat ñu ne ma. waaw waaw fan la leen ci am quoi man loolu laa ci am waaw. am na solo. ñu ngi leen jaajëfal ba tey ñi ngeeg Mame Less nekk coach Parcelles Mbollo nekkoon coach Moussa Dioum tàggat ko ci làmb tàggat ko ci wàllum bëre ñi lay jàllale leen bokk di la ñoo ngi leen di nuyu yéen waa sit internet yi fi nekk yëpp Lutte TV 4 appuisé naa ko fi xam nga ñeneen ak ñeneen xam nga yaa ngi dégg boo waxee ñëpp da ngay tam nga xaabaabal mais ñoo ngi nuyu aussi képp koo xam ne yaa ngi ci axlu làmb di dund làmbu ñu am naqar ak tiis tey muy lu ñu bett tey aussi hmm, feebar bi dama ko doon nëbbu defaral naa ko licence am ren def am na frappe am na simple am na olympique man mi ko defar mun naa la ci leer ñu pare woon pour mu bëri ren mu doon ñëw entraînement ma gis góomu tànkam bu ndaw ci tànk bi ma dàq ko entraînement école ndax man am naa fulla goo xam ne ku ñëwut la ma lay wax dinaa ko wax ngay dégg bi ma gisee góom bi mu koy xaw a soofantal ci laa ko dàq école ma ko jartu nga ñëw entraînement ma daan dem hôpital maam Abdou fii di ko faj ndànk-ndànk gannaaw gi affaire bi gën a jéggi dayoo ñu yóbbu ko IHO ba yàlla def li mu def démb démb ci ngoon à part de heure yi woo naa ko jot baylaat bàyyilaat na ma may ma bu ma ndogoo ba pare danaa la ko jox téléphone moom fa muy génnee ji ndogo ji ba muy dellu si loog docteur waaye ne ko kaay Moussa nopp na loolu lañ ci bu yàlla soxla nag ñëpp ñàkk man damay dem ala yàlla rek a fi ne te moom rek laa gëm man ma leneen lu may suñ borom donc nag bu ndogal ñëwee ak tiis muy lu metti nekk jeune bàyyiwul njaboot bàyyiwul dara yaa ngi dégg day metti day metti ci ku mu doon ku mu képp koo xam ne julli nga rek dina metti ci yow waaye suñ li ma lay wax rek suñ borom bu soxlaa ñëpp ñàkk te moo ko soxla yóbbu na ko ci ci ci njekk ak teraanga te yóbbu na ko ci muy ku baax di ko oyof di ko laabir du dugg mukk yoo xam ne yoonu nekku ci mës ngaa dégg Moussa ak coow làmb ba mu dalee bëre ba léegi doo ko dégg ba ngay ba ni mu faatu nii doo ko dégg kon nag donc nag ku baax la ku ku ku amuk lislaam la ku ku maandu la ci yëfi jàmm bu paree entraînement bu génnee këram gi daa a dem entraînement kon kooku xam nga ne maantu mënta weesu loolu ci nit maa ngi toog ak suma président nag nga xam ne moom moom la la grand jëm moom it mu sànni ci quelques kàddu mais nekkin bi nekkin bi ci écrit bi nekkin bi maanaam maanaam moom moo doon leadership bi xale yi bëre ba ci combat Ibra Ngaabu combat Obali ña ko préparé ci la bokk. photo yaa ngi ni sama téléphone. yaa ngi dégg li ma la wax baax kon xam nga ne mësta man ku ñëwul entraînement damay dégg man man man maay Mame Less déggu leen ma de. man du ma caaxaan li may def parce que foo may jóge di ñëw fii dina entraîné bëgg a delluwaat géejaay di bàyyi leen ñuy naaxata xandak yooyu du ma ci def du ma ci du ma ko caaxaane mais leadership la xale yi ne di leen préparé ci boxe ndax loxo mi neex na xale yi ne dee leen régler seen seen entraînement man ma féete ci beneen pàcc moo ma ci daan dimbali tey bu demee nii ngan di vide lay bàyyi ci école ngan di vide bu mag laa la wax ni te dama la wax ni ku baax la man musuma am mbër moo xam ne danaa am ak moom yenn yenn yenn cofeel yi mais Moussa mii ma Moussa ju mii ku baax la laa lay wax ku ku ku ku maandu la ci yëfi jàmm ku ku ku ku laabire ku jullite ndeysaan te dem gi daf ma bett ñu bari quoi billaay bett nañu trop sax parce que lu ci bari entraînement ci ci ci même bu dee bu dee bu dee côté taxawaay bi sax ñaari lu ci bari moom a ci jàppale. ba ci combat obali bi mu junni ak Ibrahima ñu ci bari moo ma jàppale wala Yacine moo ma jàppale. xam nga mais nag xam nga bu làmb soxlaa ñëpp ñàkk xam nga mënul ma tere. waaw loolu la quoi njaboot gi ñu muñ. xamante ne maanaam comme li ma wax rek bu suñu boroom soxlawee yaa ngi dégg muy mbiru àdduna suñu borom soxla ñu ñëpp ñàkk. waaw di nuyu gars yi fu teew yëpp aussi site internet yëpp waa leeral gi ñëpp waaw waaw bala ngay tàggoo ñu bëri bu ñu naa yëguñu wuñu feebar bi waaw est-ce mu xamul mu siiwaloon feebar bi ku su ku su ma nga xam nga xam nga xam nga xam nga bu ma bëggee mu génn dana génn dem voyage boo gisee licence bi ma defaroon ko pour mu génnoon dem voyage yi la xaadim ñàkkul jàppale mën la yëngu fi yaa ngi dégg bi daan dem Espagne ci mën lay lay nekk magu mën lay aussi mi ngi fi moom waajur ak kilifteef moo ko fi téye déggoo ma de waajur bëgg ay waajuram bëgg kilifaam bëgg yaayam ak papaam moo ko fi téye moom bu mi ngi ak visa yu ko neex dëkk bu ko neex États-Unis muy fu ne mi ngi ak visa donc fu ko neex day dem dagg bi rek lay def donc bu toogee fii waajur kilifteef moo ko téye te it li ko li ko li ko li li ko yóbbu nii mbiru suñu borom la doo xam ne mbiru mbiru mbiru olof la doo xam ne mbiru tubaab la mais doo xam ne mbiru def-def la doo xam ne mbirub liggéey la doo xam ne corte bu mu jóge la doo xam nan la mais xam nga buñ la wanee góom bu ndaw bu tànk ne lii moo ko yóbbu yaa problème ndax vidéo yaa ngi sama téléphone man <laughs> yaa ngi dégg mais nag dafa am loo xam ne kenn mënu ko wan ñëpp ñu koy diviser wala ñu koy maanaam di ko wali paal ci internet yi. mais feebar bi lu ma doon nëbb la man. bi yàggoon na wala euh, avant combat ñëw ëbbal Ibra Ngaaw. Hmm, loolu décembre la kon. avant combat ñoom Ibra Ngaaw bi. takk na ko ci kawasam di ma ko nëbbu sol ay fermé bi mu demee ba fermé yi commencé tànk tànk yi mu summi ko sol kawasi bi muy summee ko di fëgg kawas yi laa gis tànk yi maa dax ci école ba boobu la gëj ñëw ci école maa ne ko bul ñëwati man maa la santoon nga ñëw bul ñëwati parce que gis naa góom bu ndaw ci tànk bi góom boobu mooy infecté wu ba nii ma waxee nii ba nii ko suñu borom soxlawee kon donc euh, moom laa wax début janvier bi la parce que euh, ci catu baaraam bi nii la nekkoon di sax quoi di génn bu fii tane mu génnaat feneen te moom naka jekk ci giirub dundam ay taab da ko yeboon waaw mais lii nag moom comme li ma wax rek mën naa muy lu mu joggi mën naa muy korte bu nekkoon ci moom mun naa muy loo xam ne aussi xamul fu mu ko dale mu ko doon sooxaale xëy na xëy na soofantal ku tuuti rek yaa ngi dégg ba suñu borom ñëw kon nag dañ koy sant yàlla di leen ko jaale yéen axlu presse bi yëpp waa Leeral TV ñu ngi fi waa 4 ngi fi waa Li TV ngi fi waa waa Kewel Geek waa waa Wasaare Lamb ay Dakar Pro xam nga Li TV aussi xam nga ñoom sama waa kër lañ ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jàll yéen ñëpp quoi yéen ñëpp perte. billaay te ndax nit ku baax dem na man daal foofu laa yam dëgg-dëgg moom ku baax sax ku baax dem na billaay ku baax sax billaay ku baax billaay billaay